asalaamaaleykum ami internet yu 24 actu yi safo ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak saa su nekk gis nañ ne nag tabaski jub si na waaye jamono ji ñu nekk nag dafa nekk jamonoy mbas di coronavirus daal di indi nag loo xamante ni lu doy waala ndax indi na benn crise bu moo xamante mën nañ ko woowee crise mondiale ba tax nag ñu daal di ñëw fii ci daralu ni ni ngir ñëw xool si jaaykate xar yi ba xam ndax ña ngay jaayam déet ndax ña ngay ndax prix yokku na yëpp danañ ci am ngi fii ci daral gi lépp rek ngir gëstu ko ngir xool fan la xar yi toll ak tabaski bi ñu dët ma sëñ bi nuyu naa la. Euh, fay naa la. Euh, tur beeg sant bi naka la. Baara ba. Euh, Baara te dañoo ñëw ci daral gi ngir xool ba xam ndax xar am na wala déet. waaw xar fi mu toll nii ñu ngi commencé ñëw dafay bëreegul de am na commencé ñëw dafay taxu ko bëreegul fi mu njëg gi fan la toll. ay 70 am na 80 am na ba 100 ba 120 ba 130 am na fi mu toll nii. ndax jafe-jafe bi nekkuloon ak jàngoro ji di coronavirus. waaw xam naa loolu si la bokk moom jafe-jafe ji moom loolu lépp moo ko waral moom waaw. ah waaw am nañ si yaakaar bu baaxa baax de xar yi moom dañoo war a mën a ñëw bu baax ndax bu ñëwee rek bu boobaa xam naa la lépp di yemb daal. ndax bu ngeen aje prix yi ba nit ñi duñ mën a jënd ba kori euh, tabaski gi passé ndax du indi jafe-jafe. non ñun moom aj si ñun moom si àll bi rek fa mu nekk la waaye bu nekkee fi mu toll nii tamit ñëw na fi lu yomb tamit dinañ ko mën a wàññi bu baax a baax. Ali ba ñu ngi jëm ci feet bi nga xamante ni moo di tabaski ñu bëggoon a xam ndax xar dina am déet. waa jërëjëf soxna si waa ren moom ñi ngi jëm ci tabaski bi te am ci tiitaange wax dëgg yàlla biñ tàmbalee ba léegi li ñu gisagun daal dalagul suñu xel daal ndax ministère bi nag mi ngi def ay jéego ngir importation bi mën a gën a dolleeku mais ñun ñi nga xam ne ñi ngi dem ci frontières yi di dem ci marché yeeg yëpp di di wuti liñ gis daal liñ gis dalagul suñu xel daal wax dëgg yàlla yaakaar naa ragal naa mu dem comme daaw daal incha allah. Mm, ndax yaakaar nga ne nit ñi dinañ ko a jënd ren. non ren moom xar du yomb moom li tax xar du yomb xam nga ndorteel nawet yaakaar naa bi mu commencé taw yàggul te gis ngeen daral bi yéen bi ngeen fi duggee gis ngeen xar yi niñ mel lu suur li bëriwut kon jàpp naa ne képp koo xam ne bëgg nga xar mu baax moom jàpp naa ne moom da nga génne xaalis moom incha allah à peu près yi nga xam ne daal yi nga xam ne boo ko yoree da nga mën a am xar mu baax jëm kaw 90 ba 100 loo ko romb rek gën a am lu baax mais tey da nga daan am client yoo xam ne dañu nekk en le l'extérieur wala feneen ak feneen ah, nga leen di jaay ay xaru 80 75 ay xar yu baax mais yooya par rapport ak léegi yi nga daan jaay quatre vingt yu baax léegi ñoom ñoo dem ba quatre vingt dix loolu nag li ko li ko waral mooy xont bi wax dëgg yàlla ripaas bi ren dem na ba tonne deux cent mille xam nga tamit loolu boo ko xontee ay xar duñ mën a yomb loolu moom mooy suñ problème moom incha allah. ak jamono ji ñu nekk muy coronavirus ndax gis nañ ne saa su nekk ministère de la santé ñi ngi génn euh, di joxe ay conseils yoo xamante ni pour nit ñi mën koo respecter li jëm ci wàllum hygiène bi naka ngeen koy dundee jamono ji. waaw ni ñu koy dundee mooy comme ñun Touba lañ dëkk. dañu sàmmonteeg euh, ndigalu sëñ Muntaxa rek comme li ma koy faral di waxee comme ñun sëñ Muntaxa lañ fi nekkal ni euh, ndigal li nga xam ne jox na ko Cheikh Bass te mu digal ñu ko te ñu dëkk ci dëkk bi muy mesures barrières yi nga xam ne ñu ngi koy sàmmonteel yaakaar naa sama masque léegi laa ko dindi mi ngi nii sama poos <laughs> ba pare ñi ngi teg encore tamit euh, ndox mi yi am eau nit ñi ngi raxasu ba pare daan daan tamit encore tamit ñu ngi koy bàyyi xel daal xam nañ tamit bu ñu duggee événement nit mënuñoo ñàkk bañ a jegente mais loolu lépp ñun ñu ngi koy calculé waale euh, ngir nga xam ne li nga xam ne mu ngi fi muy mbas mi te jugee gu fi te wax dëgg yàlla sëñ bi mi ngi def effort di wàcc ay kaamil di ñaan ngir mu jugee fi mais loolu ñun loolu ñun taalibe ñun ñoo ko ci dimbale gën koo sàmmanteel baax daal ñun daal ñu ngi ñaan sëñ Tuubaa gën ñoo yokkal xéewal ba lii nga xam ne moom moo jàpp taalibe yi jàpp addina bi yëpp daj ko kàpp incha allah mu jugee fi rek bañ fàtte ko moo feeñ ci ki graine bi ba nga xam ne daanaka lu bari dafa yàq ñu waroon def opération kenn defu ko xarin ñi nga xam ne war nañoo importer pour dugg Sénégal bu ñu jigéen ne Sénégal mbas mi dafee ni fi ni mu fi diisee te deltuwut ginnaaw ñoom it dañuy ragal xam nga tamit loolu gën naa yokk li nga xam ne seeraayu xar bi mais bu fekkoon loolu lépp dégagé wu na fi kon nañ ne ren tabaski gi xar day lamb loolu nag jàpp naa ne moom moo jàpp doomu aadama yi ba nga xam ne ren tabaski bu métteet da nga xam ne luy passé lay doon rek incha allah mais nag mesure barrière yi moom ñu ngi koy sàmmanteel. Euh, sëñ bi noo def. maa ngi sant kay Mamadou Ndiaye laa tudd. daral gi ñu ngi dolli sant yàlla alhamdulilah ñu ngi dem nag ci fête bi di tabaski ñu bëggoon a xam ndax xar yi dina amam déet. xar yi moom macha allah dina am dina am la problème que ne mooy maanaam euh, xam nga des fois client ñëw fi nga yor ko ku di xool bu cent mille loolu lay tardeel affaire bi yaa ngi dégg ñu bëri ñu ngi naan xar yi seer na xar yi loolu kese koy indi yaa ngi dégg mais boo bëggee bu cinquante am na cent mille am na quarante mille ba cent cinquante mille yëpp am na fi. mais est jar cinquante mille tuutiwaay bi mooy waral duñ ko mën di jënd. waa loolu moom am na ci loolu moom am na ci par rapport ak ni mu daan mel xam nga tamit ak période bi mu ak agsi nii eh, taw bi day doog a door te daanaka bu jëmul ba taw bi ja am ba ñax mi am xarit duñ mën a génnee noonu day fekk ni sàmm yëpp ñu ngi ci kaw affaire du mën a demee noonu. ndax bu ngeen ajee prix bi ba euh, tabaski gi passé ndax du indi jafe-jafe pour ngeen jaay xar yi. non du indi jafe-jafe parce que période bi ñu jëm ci kanam mooy ëpp avantage parce que euh, maanaam euh, xont bi day yomb yaa ngi dégg mais ñun aj ajuñu ko. ca kaw ga la nam fa demee la maanaam jot ko fa moo jafe fii sax ñun ñu ngi wax lu raisonnable mais boo demee ci kaw ñun bu ñu jënd duñ dégg lu raisonnable dañuy wax ba jot ci rek yaa ngi dégg moo waral conséquence bépp nag pour seeraay loolu kese ko waxal dañuy wax ba jot ci rek loo looloo waral seeraay bi waa client yi moom macha allah ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mais bëreegul ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mais bëreegul. ban message ngay lancé. ah xanaa ñu euh, dolle sant yàlla rek maanaam nañ dolle góor rek te jàpp ci affaire bi. surtout ministère bi nag war na war naa mën a jàppale sàmm yi war naa mën a jàppale sàmm parce que affaire yi laaj na ndimbal fii parce que période moom bu jàllee si jamono nañ ko sant yàlla doolee sant yàlla rek. sant bi naka la. Euh, nekk client doon ah, te fenk la. Euh, prix xar yi naka la demee. prix xar moom ah, raisonnable na moom. parce que maanaam lu commencé soixante soixante quinze ba cent nangam rek kenn ku ne sa doole daal. foofu mu toll rek. ndax jafe-jafe amoon na jafe-jafe pour ngeen indi ko ci daral gi. non am na jafe-jafe moom parce que xar yi moom daanaka da ngay wër fu ne doo ko am pour am ngi góorgóorlu fas yéene ñëpp am rek incha allah. Euh, léegi ndax client yi ñu ngi ñëw. non client yi ñu ngi ñëw moom wax ba Dakar ñu ngi ñëw di jënd si fii. a yóbbante mën a jaay xam nga xar moom li nga jëndee rek nga mën a jaay bépp jur nag noonu lay dem muy nag mooy xar ak mbas mi ñu nekk nii di Covid 19 ñu gis ne mesure barrière yi bëri na ndax yéen a ngi sàmmanteeg moom. waaw ñu ngi góorgóorlu moom tey moom mu musal rek tey ñaan mu jeex fépp mhm. waaw moom fépp la laal moo tax boo gisee tabaski demee nii mbas mi da cee suyee di lancé ñëpp rek ñu góorgóorlu rek ñu mën a woyofal jaake nañ woyofal ba ñëpp mën cee jot waaw di ñaan suñu borom barkeel lépp rek ñëpp tabaski tabaski jàmm barke Xaadimul Xaadim 100000 la jar maa ko moom xool xar mi boobu noonu 100000 lañ ci wax waaw bu dee bii manager 110 waaw bu dee bii manager 80 85 waaw kon kon raisonnable nax na pël yi abordable na non mais nag yàlla baax na nañ nañu am xéwal rek ndax nañu wax delloo ma rek la sëñ Fall waxoon. Alaaji Jaw lañ ma wax. Euh, Alaaji nga nekk ci daral gi di def euh, opération tabaski ñu bëggoon a xam ndax xar yi nu mu demee ndax am na wala amul. waa xar yi ñuy ñëw nag fi mu toll nii ñu ngi commencé di am quoi xanaa si ginnaaw moom xawoon na maa ñu ngi ñëw fi mu fi ñëw. fii daral gi da nga am loo loo sa poos lu ci nekk rek boo ñëwee da am loo tolloo li bon daal mooy nga yor euh, fukk bëgg ñaar fukk waaye boo yoree ñaar fukk sa bët euh, euh, yam ci xarum ñaar fukk da am soo yoree tamit lu ma yées ma ñaar fukk te bëgg xarum lu yées ñaar fukk da ko am boo ñëw fii daal macha allah lépp am na. ak soppeeku ak jàngoro ji dugg ci réew mi di corona si am na soppeeku baax a baax am na soppeeku baax a baax moo tax képp koo xam ne man ngaa teel a jënd sa xar moom moo gën. parce que soppeeku gu mag am na ndax euh, frontière yi ko fooge woon maanaam ak teel ubbi yàlla def na ren amul ah ma dëgg dégg nañ gars yi nag ñaan nañ ubbi mais comme ba léegi gisaguñu ak ubbi gisaguñu xar yi jógee fenn di ñëw di ñëw di dugg si ah li gën daal mooy ku mën a teel am daal loolu moo gën loolu ñi koy digal ñëpp bu baax a baax mot na métti na trop sax waaw ah, métti na baax a ah, loolu taxul sax loolu taxul sax ndax ñun buñ sañoon ku yor juróomi junni sax bu ñëwee am waaw xonte moom buñ ko ajoon léegi ñaata la prix yi tàmbale. waa li commencé fukk am na ba mil xar boo bëgg macha allah am waaw. ñu teel a ñëw rek waajal bu baax a baax te xam ne fii daal dara mu daal ku fi ñëw loo loo bëgg da ko am incha allah. sant yàlla rek ñu ci ragal manqué nag waaye yàlla bu ko yàlla manqué ndax li tax warta manqué mooy euh, borom kër dafa metti yal na yàlla jàppale ñëpp ba kenn ku ne loo yor rek nga mën a am xar xar yi nag wax dëgg yàlla seer na trop. waaye nag ci période bi ni mu demee moo ko waral ndax xar mu ne am na fi waaye xar itam njëg gi fi ne jaaduwul ñun ñu ko jënd sax yoonoon xaalis waaye fi ne daan yeew ci xar ñu koo yeew waaye yal na yàlla suturaal ñëpp ba kenn ko ne la nga bëgg sumbam baam jàppandil la ji ci kanu sëñ Tuubaa jëriñ waaw ñu ngi ci bu baax ñu ngi ci bu baax ñu ngi ñaan yàlla dàq mbas mbaa ñu ngi ci bu baax ndax jafe-jafe yi yëpp xam naa moo ko indi waaye yal na ko suñu moo na dàq yal ko dàq dana ànd jàmm gouvernement bi xanaa kay mu jàpp nañu rek ci wàllu liggéey bi am sécurité bu doy ak ubbi ubbi maanaam réew mi fépp fu xar mën a nekk rek ba mën a ñëw mu jàpp ne ba mën a ñëw ba ñëpp mën a am tabaski waa ami internet di gis ngeen ko tey dañoo ñëwoon rek daal leen di ñëwal ci daralu ndindi gi gis ngeen li nga xamante ni moom la jaaykat yi wax nee nañ nag xar am na nee nañ yomb na ñii nee nañ nag yombul waaye nee nañ fu sa rek boo ñëwee di nga daal di am comme ni xar yu ndaw amee rek noonu la xar yu mag yi daal di amee nee nañ tamit nag ñi ngi sàmmonteeg mesure yi nga xamante ni ministère de la santé digle nañ ko ngir xeex mbas mi nga xamante ni moo lëmb réew mi kon nag lii rek leen indi loon ami yaakaar naa ne gis ngeen li nga xamante ni noonu la situation daral gi tey jii ñu leen jox rek dig daje bu ëllëg jàmm jërë ngeen